dama am ku may génnal te kooku noonu laa bëgg a takk mais sama yaay ak suma papa moom ñoom ñëpp ki ñu bëgg ma takk ko du kooku sama doomu ndey moom lañu bëgg ma takk ko sama yaay bi mu fi mujj toog waxtaan ak moom rek xamal na ma carrément ni ma koo fi takk ku dul sama doomu ndey boobu dugg si kër gi te wax dëgg fa yàlla man bu ma takkee soxna dama ko bëgg a suma kër yaay waaw parce que man bu may takk soxna pour mu jàppale sama yaay moo tax mais tamit ki may génnal ni wax dëgg fa yàlla man moom laa bëgg te moom laa bëgg mu nekk sama soxna sama copain yëpp ñoom xam nañ loolu maa ngi koy dund mu metti trop si man parce que instant bi nii loolu rek mën naa ne moo ma tee takk soxna parce que toll naa fu may takkee soxna te mën naa ko mais mën naa ne loolu rek moom moo ma tee takk soxna instant bi nii te ki may génnal nii moom laa bëgg a takk li ma gën a tuugal si moom vraiment su ma gis si moom benn jikko bu ñaaw wala benn man ma mosuñu am benn histoire jàmm lañ mos a seex yaayam bu ma gisee dafa may def comme doomam boole ma si boppam waaw heure bu ma bëggee koo gis day ñëw seet si ma damay dem seen kër muy ñëw sama kër ñu am confiance boobu noonu si man te vraiment bëgguma tas yaakaaru doomu aadama rawatina ki ma seexal bëggeel nii nga xam ne mosuma def dara lu ma metti bëggu dara lu ma koy soxla bu ma ko wooyee mu jox ma ko wax dëgg fa yàlla lebaluma dara lu ñaaw loo xam ne tey jaral na ma ma koy bàyyi di dem di xool beneen jigéen te xamal na ma carrément ni boobu heure boo ma waree damay dund lu metti instant nii te tamit bëgguma teggi ndigalam bëgguma teggi ndigalam tamit wax na ma ni ma carrément man bu ma ko waree dana dem xaru te loolu noonu dara àdduna jaralu ma ko ak moom man ak moom li ñu séq lépp ak lim lim ma ko defal lépp ak lim ma defal si àdduna lépp vraiment mën naa ni lépp xam ne si rajo mais maa ngi dund lu méttee méttee instant nii vraiment wax dëgg fa yàlla parce que moom lu ne laa ko jaral lu ne laa ko jaral si àdduna te dama dundoon déception boobu mu métti ma trop te bëgguma ko teg doomu aadama muy am ku ma doon génnal yàlla dogal mu sëyi bàyyi ma man demoon naa bëgg opté sax ne man duma takk jabar ndax lu métti li ma lu ma doon dund kon tey yaakaar naa ne bu ma jëlaatee loolu di ko teg si doomu aadama te ma ko xam ni mu méttee xam ne tolloon na guddi yoo xam ni du lekk mënuma naan di xalaat parce que yaakaar naa ko moo doon sama soxna yàlla dogal mu wan ginnaaw kon tey kii nii nga xam ne doomu jaamur la miin ma trop seen waa kër miin ma ñu xam bu baax ma yéene koo takk soxna vraiment wax dëgg fa yàlla instant bi garaaw na si man trop parce que nee na ma carrément man bu ma ko wanee ginnaaw dina xaru vraiment te man sama yaay sama doomu ndey la mu bëgg ma taxu ko te sama doomu ndey boobu wax dëgg fa yàlla man kii laa bëgg wax dëgg fa yàlla sama deret la bañu moo ko de mais wax dëgg fa yàlla man bu ma sañoon ki may génneel nii laay la